sama rakki bopp yi maa ngi leen di sant ci njiitum sëñ xaadim waaw ñoom ñëpp rek bu ma tuddee sëñ xaadim tudd naa ñi ci des barki démb la ñëw sama kër ànd ak mbooloom indil ma fa addiyee joo xam ni ba léegi moom laa yore ah waaw te loolu bu ko defee def na ko ci turu rakk yëpp Seydina sëñ xaadim mi daal Suisse ñëpp rek xaadim mboose ñoom ñëpp rek waaw maa ngi leen di sant. sànjurul waaw rakk yëpp rek bu ma nee rakk yëpp rek waaw waaw. ak fu mu mën a ne. ak fu waay mën a ne. góor jigéen mag ndaw ñëpp maa ngi leen di sant ah, maa ngi ndam li yéen a fu ma tourné ñu naan ma sëñ Saal sëñ Saal loolu yéen a bu loolu ak yéen duma ko man na ngeen àndee woon ak moom rek ngeen àndee ak maa ngi leen di maa ngi leen di sant am wóor na ma ni fii ba ngoonee kenn du fi xaj yëf yi neex na bernde yi bari na waaw maa ngi maa bëgg lool ah, waaw fi mu li ñuy wax naan bu fi yemoon sax mu neex mel na ni wax dëgg yàlla am nañu ndam waaw ah, te loolu loolu sëriñ bi